Ngagne Demba Touré yóbbu nañ ko rek tribunal de grande instance bu Matam loole nag ab arrêté buy wax ci affectation de greffiers boo xam ne xaatim nañu ko niki àjjuma fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin nga xam ni garde des sceaux ak ministre de la justice Ismaïla jox Fall moo ko amal xibaar boobee nag kii ngañ dem ba Demba xamle na ko rek ci ay réseaux sociaux boobule dogal nag ñëw rek ginnaaw conférence de presse coalition Yewwi Askan Wi nga xam ni rek dañu ko defoon ngir rek indi ay tontu ak i leeral ci conférence de presse bi nga xam ni ñu bokk ci nguur gi ñoo ko amaloon niki alxames ci boobee conférence de presse nag ministre de la justice justice andi rek ay leeral ci décision bi nga xam ne juge bi jël na ko ci rek mbirum Sweet Beauté nga xam ni moo dox diggante Adji Raby Sarr ak Ousmane Sonko ca conférence de presse yeewu askan wi nag kii di maître Ngagne Demba Touré xam la ci ay kàddu ni rek d'accordul benn yoon ca la nga xam ni ministre de la justice wax na ko waaye tamit ci ay kàddu mu rek dindi lépp loo xam ni ministre de la justice wax na ko ab ministre de la justice daal du commenter décision bu justice te rawatina sax loo xam ni nekkulu lu définitive moom warul dugg sax ci xelu juge bi ndax loolu daal mooy signifier que décision bi moom ci moom la jóge ñu bari jàpp ni nag kàddu yooyu nga xam ne moom la maître Ngagne Demba Touré yëkkati ca conférence de presse yeewi askan wi moo tax rek ñu affecté ko moo ne boobu boobule affectation nekkul bu njëkk ndax it am na ñenn ñoo xam ne ñoo bokk Pastef waaye tamit ak yeewi askan wi yoo xam ne rek affecté nañu leen ku ci mel ni maître Ousmane Diagne di maire Thiès Ouest ñu rétrogradé ko chef greffe bu Tivaouane ci rek ab simple greffier ci Thiès laata moom nag kii di maître Tanor Diamé bokk ci Pastef Nioro ñu rek affecté ko woon Tambacounda